yal nanu teewe xutba ga ak armal ga te bañ a wuute taaye jaag sëlmal ga waay jullee jumaa ci suuf di jaamu yal nañ ko baaxal may nu lañ daa taamu bi jaahi man yashfaa yowma alxaqi عليه تسليما مميت الخلق بالآل والأصحاب فريرن بخادم المختار فرقرن إكنقرنن كتخن حمجماجي moo kuy julit li feeg julli gën maa ji alhamdulilahi rabbil alamin ñu di seere ne moom rek mooy yàlla moom rek mooy buur moom rek mooy borom moom rek nga ko jaamu moy di seere ne amul benn bokkaale moom dara ci nguuram gi moom rek moo man rek sañ rek jëf kuy moom rek ab jaam nga mbindeef nga di seer na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ci jaam ñi waaye muy mbindeef mu bind ñun bind jaam yépp benn la moo ko rek teg ko ci kaw yépp naka noonu mu tànn leetal bi nga xam ne mooy islaam leetal bi gën a mat bi gën a jub bi mu jawat bi nga xam ne lépp loo xam ne mu ngi ci am islaam rek wàccoon na ak yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam kon lislaam amul luñ ci yokk amul luñ ci wàññi lépp mat na sëkk mbokk jullit yi ñu leen di dénk dénk suñu bopp bu baax a baax ropp yàlla ragal yàlla bu baax mbokk yi ñu xam ne yetu sallallahu alayhi wa sallam du mu tàmbulee di woote lislaam ci Makka metti woon na ci moom lool dund fa at yu metti yu tegaloo yu metti lool ba jéggi dayoo waaye nag at bi nga xam ne mooy fukkeel ba moo gënoon a metti lool ndax dañu daje moo tax ndax mooy at bi nga xam ne ki ñu wax abu talib doonoon bàyyam borom bu dese woon nga xam ne moom rek moo taxoon xuraysh muy wër ak si moom olom ko at moom ci la fat ci la wàccu liggéey mu metti lool si moom ñu demaat ñetti fan am ñu wax ñaari weer soxna fi nga xam ne si dina xadija xadija moom ñu wàcc liggéey moom doon nga xam ne moom dàpp ci bu baax a baax ci woote bi ba mu ñëwee sama ko ñu tax mu gëm ne lii ab ab ak yow wax yu la ndax moo ko saxalal da ko yow da nga lu wóor si borom la gàccal lii ma gis nga ko gis wër ñu lu bàcc yoon salaat yàlla laa wax dalaa bëgg a def nga nekk yonent sallallahu alayhi wa sallam kooku ci ak moom ci la wàccu liggéey mu ñaari métti métti yoo xam ne yonent bi dafa desoon foofu koo mën mën koo mën ko gàddu mën koo supporter ba taayif di leen woo ci ci lislaam jàpp ne dafa am dimbali mu gën a métti ñu weddi ko waaye di mu ko lañ ko boole sànni ko ay xeer daa ko wax sax ñu ne tànkam yu sell yooyee di génne deret sallallahu alayhi wa sallam mu daal dina jaaxle loolu delluwaat ci boromam daal di koy ñaanaat ne ko man kat borom maa ngi lay maa ngi lay jàmbat sama néew doole ak sama néew pexe ak sama néew ak sama ak sama doylu ci nit ñi donc yaay ki xam ne yaay borom bu ñëpp ñi xam ne dañoo néew doole kon man ci kan laay bëgg ku yow subhanahu wa su borom daal di koy wuyu ginnaaw bi nga xamee ne ci la lii lépp xew mu métti ci lool si bo daal koy tontu tontu bu leer nañ bu bëri bu ñepp xam lu ci xaanu karim te moy al isra wal mi'raj manam moy mu rañane ko ci jëm ci bopam ba mu agsi ci mom ñu sa bakki ni ni li ci ay jël ci dafa yëngu aw ci ni sarat ni mo sarat lepp mo tax wax ci xalaat alquran ne ngi tuddu sell sell sama borom mom mom yalla moy wax mom mi nga xam ne mooy yéege jaamam bi guddi mu jëbal ko ci masjidil xaraam bi ci makka yóbbu ko ci baytil maqdis ñu xam ne mbokk yi diggante makka ak baytil maqdis mille quatre cent quatre-vingt-deux kilomètres lépp ci génn gi la ko dox ñu gis ne ni ñu li ñuy seetlu ci aaya bi bokk na ci yoon dafa dem ci jëmbam waaye demut ci gént demut jeneen jëmm la demee ndax dafa xam ne bi ab yi la wax waxut bu doon ab ji wala bi nangam abdi waxit ni guddi la donte tukki rayal mo guddi rek lay xaw waye nak mo gën fedd ni ko tax bu xane ne wax ci guddi ak ci mu jëm ko mbokk ñu xamne ne loolu lu saxal ci lislaam bu ñu lay rek al isra day tukki bo xamne guddi rek lay xaw mo ñu ñu ko xare ba ci makka ba bëti maqdis miraaj nak moy tukki mu tukki won mo ñu yéene ko jële ko ba ci maqdis yóbbu ko ci samaatul olaal suñ borom dalal ko fa awha ila abdi ma awha won ko lam ko won lo xamne kenn xam kul mom ñu ngi borom ak fa xamne kenn musa ak mom rek musa ak sallallahu alayhi wasallam naka lolu mu jox ko fa julli ji juroom bu ko joxe bu doon juroom fukki julli da bi mu wone ko be ñëwaat nak bam dalé sidina musa mu ne ko li ka dal di ci askan bi ko te agal suñu borom ak ko ñaan ko mu wajil la ko mu jallu jallu mu def ko julli juroom julli ñu yoy xamne rek moom la ñuy julli guddi ak bëccëg te kudd ak laa bay juróom fukki doy nga xam ne moom lañ ci moom lañ ci besoron bu ñëwee sëñ bi wàllu jàll baax mi ngi nettali tuuti boobu ci xasida ci ñaari bay bi dane subal amini maanaam yéegeef na kañu wóolu yonent bi sallallahu ak kañu wóolu mooy jibril sallallahu alayhi wa sallam foo xalaat ñu mu ne uyow ci kaw kon loolu daf naa tukki bi moom loolu gàtt loolu tënk na ko mu waxaat ne kat si yom saa sallam tukki boobu ci la xat xaasa faxraa lu am ci la ko amee ndax ci la kawe ñëpp ndax ci la dem fa kenn musta dem mu jiidi asra mu ne gis mi jaxaraa loolu dañuy indiwaat si aay bi rek boo xam ne bi abdi gis mi la wax jaxaraa kon dafa dem ci jëmmam waaye demul ci gént wala ci wala ci jëneen ci jëmmam la dem mu wax gis mi jaxaraa la la tiraay ci beneen góor bu leer kon sëñ bi wax tënkal tukki bi ci ñaari bayit yu gàtt yooyu nga xam ne moom la ñu jàng léegi yoon ko jaaduwala mu dellu si Makka li mu wax kenn gënu ko ñu laajee Abubakar Sadiq nag mu ne moom de bu ko waxee dëgg la bu fekkee moo ko wax rek dëgg la bu ñu ko waxee moom man xaw ma ci dara boo waxee rek moom wér la waaye ki ci gënoon doy waat ci Makka ci yéefar yi ba mu ko déggee mu sama tur salaam salaam nit ñëpp mu wóoree jël kaay bi mu li mu wax kee na ko firndeel nañu wax Baytul Maqdis eh, ni mu mel mu tàmbali di wax nee na ma dem ba ba mu fàtte suñu borom indil ma eh, Baytul Maqdis sama kanam ba jàkkaarloo moom di ko melal di ko melal ba mel na meloon ah, ba ñu wax doo delluwaat fa mu nekkoon loolu tam ba léegi dafa bokk ci karaama yi rek bi itam pour moom li nga xam ne daan def di tukki ci di dem Cham ay jëgg moom jëggoon na soobu demoon na ñu ne kon kat yow jógee ci yoon nga jaar war ngaa a xam jëgg yooyu ñu demoon ba day romb naa leen jërëm sàngam moo jiitu jërëm sàngam moo mujj te incha allah bi sàngam ñëpp gën ci incha allah bi lam en ah, wax na lépp xewe noonu la kon loolu ba léegi tamit dafa dugg ci moo gisam dama nañ la euh, mbokk yi kon ñu xam ne rek alisra wal mi'raj lu sax lu am solo lu wér la waaye nag mu duñ ko dàng rek yooyu dañ ci war a def ay jàngat am ci ay njariñ njariñoo yu bëree bëree bëri bi ci a mag ci ab ci nit mooy mu nekk jaamu yàlla mooy martaba bu gën a mag xataa sax yoon nekk jaamu gën ndax sax suñu borom taala koy tudd ci aaya bi ñëwul tuuxul turam waxut waxut eh, yonent gi dane bi ab bi la wax kon ñu xamee ci ne sharful ubudiyya maanaam jaam moo gën a màgg ci mu di tudd jaam suñu subhanahu wa taala loolu danañ ko jàng ci ci tukki bii te abd dafa wute ak abid ndax bu dee abid moom ñëpp ci dugg mën naa nekk yëpp mën naa nekk eh, mën naa bu dee nag abd moom jur doon koy doon jur doon koy doon abd jur sax bu sellal mooy moo tax ñu koy wax abd bi ñu ciy jàngataat jëpp mooy barab makaana bi nga xam ne am na ci Baytul Maqdis jàkka ju màgg a màgg la moo nekkoon xibla mboolem yonent yëpp bi ñu sallallahu alayhi wa sallam bi sax bi mu bi mu ñëwee njëkk a dugg julli ba suñu borom dugal ko mu soog a juggi jëmale ko loolu ma xam mu mu rëy rëy la tey ca biir euh, jàkka jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jiitu muy rañaan mu jiitu mu koy léegi fa la jullee jiite fa yonent yëpp salawatullahi alayhim kon ba tey loolu bokk na ci li liy firndeel ne barab bu màgg a màgg la barab la bu bu am solo te waaye nañ ne yonent bi nag moom mooy yonent bi xam ne moo féete ñëpp kaw ndax moo ko jiite yonent yëpp soog a dem kon yépp moo si imaam te it fa la déparé jóge fa dem ci asamaan yi gën a kawe kon yëpp nag bu dajee ci barab dañuy jàpp ne barab bu màgg la ci gisul islaam yoon saa sala bu mu fi jógee dem ca kaw asamaan ci la tuxoo si mata ba ko ne mu yàq yi jëm ci ay nit yàq yi bu dëkk dafa xamoon rek xam gu wér dafa gis gis gu wér te dafa wax ne fa awxaa ilaa abdii maa awxaa wax afaatumaaroo alaa maa yaraa li mu gis sax dañu jowel teg moom kon dafa gis lu wóor ci moom fen fen dafa xamoon dafa dafa gis wax maa katabal fuaadu bi ñu mooy maanaam euh, importance su julli julli bokk yi loolu importance la lu ëpp ko sàggane la ndax julli rek mooy jaam yàlla bi nga xam ne yonent bi kenn jox da ko ñëw mu jox ko ko mën nañoo wax ne mais amee yónni ko kenn waaye bu dul bu dul boobu rek da ko yónnee tey su nañ ko gis nañ ko joxe bee rek moom ca kaw lañ ko joxe ba pare yónni ko kenn da ko jox loxo ak loxo ngir ngir kóolute gën a kon mbokk yi julli mu ëpp martaba ci lislaam kon ëpp naa sàggane amul benn lay bu tax ne mën a day julli lu dul rek xëy na am xelam dem donc même sax bu de dem bay bëgg faatu ba nga xam ne tëb rek la man tëb sax mënut a tëb sax ñaari wet ba léegi julli ko wàcc kon loolu day wane rek makkaat ñii mu am ak ni mu ko joxee mooy indi loolu lépp euh, bi ci mujj rek mooy ñu xam ne euh, al mu'jiza maanaam xar baax dafa sax ci lislaam lu am la lu wér la kenn du ko benn yàlla ci moom moo ko nettali aaya bi xar baax lay nettali kon xar ba su àdduna soo ba léegi dafa am kon kenn mënut a gëm islam bare di wet di xar baax waaye xar baax nag kenn du ko foyee bu dul rek xar baax la su boobaa du nekk xar baax ndax xar baax mooy lu ñu miin te bu bëree rek nekk lu ñu miin su boobaa dañu daan génn màttaba xar baax waaye xar baax la su borom sax ma koy dugal ak jaam rek mooy dëgëral ko saxal ko wala ne kat kii lii muy wax ci man la bàyyee ko ndax kat dana def loo xam ne duuru ko man loolu mooy xar baax jóg waaye jógul ngir fooy ñeent juróom ñi ndamal juróom ñi yëkkati ko daraja kon daal mbokk yi loolu rek jàpp naa leen lu am solo lañ mën ko jàng ci ci Israa wal Mi'raaj yan jàll defal ñu kër topp yan jàll xiir ci lu baax di ko jëf di ko waxee akula ko astaghfirullah wala ko wali saayil muslimin dal nañu teewe xutba gaag armal ga te bañ a wuute taaye jaag sëlmal ga waay jullee jumaa ci suuf di jaamu dal nañ ko baaxal may nu lañ daa taamu bi jaahi man yashfau yowma alxaqi عليه تسليما مميت الخلق بالآل والأصحاب فريرن بخادم المختار فرقرن تكنغرن كتخن حمج ماجي موكي جلد لفيد لي جماجي